Assalamualaikum warahmatullahi taala wa barakatuh. bokki julit yi rawatina bokki talibe yi ci wat nañu ci pak bu tedd bi tok ak sunu sang bu tedd bi nga xamne ni ñu ko baxo waxe ak yeen sa yu ngeen degge kaddom wala ngeen seen jëmmam ndigal ko ndigal lu bayiko ci magam ju tedd ji khalif general de Mouride serigne Cheikh Sidi ñun ñëpp nu di ñu ñaan suñu borom gën ko fee yàggal te defal ko wér gu ànd ak wérle wérelal ko ñi ko wër gannaaw boo xamee ne sant na bokki taalibe yëpp ci ndigal yi weesu la ko joxaat ndigal mu war na koo jottali mi ngi nii toog feggoo ak sëriñ Basiru Mbàkke moom sëñ Abibu ñu xam ko ci euh, euh, rabitatul xuraaniya mu am kàddu yoo xam ne sëriñ Sidi Muxtaar jox na ko sëriñ Muntaxa Mbàkke mii nuy ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te kàttanal ko agalel ko yenem mu jot li nu kàddu yoyu nu dok nu bok déglu serigne Mouhamadul Mountakha ci kàddu yi bayiko ci serigne Cheikh Sidi Mokhtar. alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh kon bokki julit yi bokki talibe yi bokki dëkkandoo yi delu si nañ fi ci li nu fi da andi rek. la ci jiitu nag bu ngeen xoolee ci sama da ngeen gis Cheikh Mouhamadou Bachir mu Cheikhul Habib li li li waral nag ma woo ko mu ne fii sama wet bala maa jot ndigal li day lu lu lu yitteel ndax moom moo ànd ak daare yi nga xam ne ñoom alxuraan rek mooy moom lañ def seenub liggéey eh, fekkoon na jamono yi yëpp nag ñu am xalaati eh, xalaat yu rafet yu baax yoo xam ne dafa jëmoon rek ci eh, ñu dellu ci sunu boroom ak i cant yu rëy a demoon nañ sax ba ci sëriñ bi di ko ko gaaral waaye dafa mel ne nag sëriñ bi moom daf leen a dab ak ndigalam ndigalal boppam kon mu daal di mel ne ñoom itam lañ ëmbul lépp ci lu baax lépp dafay daal di dellusiwaat soowaat ci ndigal sëriñ bi dafay daal duggaat ci ndigal sëriñ bi ba jeex tàkk sëriñ bi nag moom li mu nekk rek mi ngi ci mooy e, Cheikh Ahmadou Khadim borom liggéey bi e, moom mosut a jóg ci boromam loolu nag la ñu bëggal mu nekk ci suñu borom waxtu wu nekk saa su kon Cheikh Sidil Mokhtar loolu la xam ba tax na loolu rek mooy yitteem nekk ci suñu borom waaye nag suñu doyee di tax na nag loolu duñ ko mënul itam nag suñu dellu ci suñu borom di jege loolu moo waral nag ndigal lii mu mu mu ci ci bëccëg rek la ma ci bëccëg rek la ma woo wax ne naa ko jottalil ndigal li mu mu mu ñor ko lool lool lool nag ni ma ko waxee eh, wax dëgg yàlla eh, néew na mu mu mu daa ma ko waxee noonu ndax jot daa bëgg koo jot li ba ma sëkk waaw waaw dafa wax ne ajjuma ji ñëw na ñépp delluwaat seen borom tuuba ko jégglu mboolem jàkk yi mboolem juma yi ju ci ne nañ fa daje lu niiw ñu jàng fa ñetti kaamil te ñëpp it maase ci sàkk sarax góor gi jigéen mag ndaw ñëpp amul ñëpp na maase ci nañ maase sàkk sarax loolu ndigal loolu nag ni ma ko waxee dafa ne jullit la ko digal àgg na ci du amul xaadir amul tijaan amul murit kon amul laayeen jullit yëpp la ko digal kon ni ñëpp dégg maa sa dégg na say Seex Seydi Moxtaar jox na ndigal jullit yëpp eh, ñu delluwaat seen borom ànd ku tuuba ku jégglu eh, te sàkk nag ay sarax ñëpp nag góor ak jigéen ma nga ndaw ko ñëpp def mm, eh, bu dajee fu mu foo fu mu dajee rek ñoo gën a yeyoo te gën faa jege ñu jox leen ko waaye na ci ñëpp maase jàkk june itam ak jumaa june nañ fa jàng lu ñetti kaamil néewul sax lu mu néew ne dafa wax na nañ fa jàng ñetti kaamil noonu la ko waxee kon nag bokki julli yi bokki taalibe yi bokki dëkkandoo yi bokki njegeñaale bokk yëpp na ngeen ko déggee noonu sëñ bi moo joxe ndigal loolu te lu ko ñor la lu lu ko lu lu sori ci moom la kon nan ko bokk déggee noonu te te te te te te te sant gën a gën a gën a yeesa suñu cant suñu borom mu nu bëri sëñ Tuubaa di di di ko san di ko yees suñu cant moom mii nga xam ne mi ngi taxaw temm ci la Sëriñ Tuubaa bëggoon ci noonu rek moom la moom la bëgg ci noonu loolu moo tax moo waral euh, ndigal yi euh, lu mu lu mu gën a jegee rek euh, bu sañoon mu gën fa jege kon ngeen dégg ko noonu jërë ngeen jëf kon nag Cheikh Mahmoud Bachir ndigal laa ngoog buñ bu sëñ bi dee jàngalu alxuraan kon ndigal lañ julli wax nañ ndigal julli yépp ko bokk waaye yaakaar naa yéen a ci jiitu yéen a ca nekk def ko muy suñu lëg seenu liggéey di ci di ci so woo nit ñi di ci xiir nit ñi di ci ànd ak ñoom di leen ci soññ kon nag ndigal laa ngoog lu ngeen ci bara daa def na ngeen na ngeen na ngeen xam ne que lii kat ñor na ko ñor moo xam ne lu ngeen ci daa def bu ngeen ko mën a yokk boobu ngeen yokk ko waaw kon nag alhamdulilahi rabbil alamin jërë ngeen jëf am ngeen am ngeen am amati ngeen tawfeex ju waaw ndax ginnaaw yéen eh, da ngeen doon di parce que yéene rek eh, sëñ bi dable na ndigalal boppam te mu ñor ko lool sori ci moom lool kon amati ngeen tawfeex waaye liggéey baa ngoog nag kon jërë ngeen jëf ñoo ngi jéggulu nag eh, doya di <laughs> barakallah kon kon mbokk yi dégg ngeen ndigal la ngogu serigne bi wax ne aljuma ji di ñew inshallah taala bo bu doonul ben ben fan doon ñaari fan ci tam xarit nu daje ci juma yi ak jakk yi ni ko waxee jang ñetti kamil jakk ju ni barab bu nañu jàng fa ñetti kamil sak sarax jox ko ñiko yello te nu ci tam nak ñaanal ko mok magam ju bax ji ak ñi nga xamni ne ñoo jiite alxuraan ji nekkan ci tol bobu ba ndigal li fekk leen ci ñoom itam suñu borom gën leen fa yagal te degeural leen agale leen seen yene barke Serigne Touba.